asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi euh, daa am loo xam ne ni rek vraiment dama ne woon euh, man du ma nekk du ma du ma du ma du ma occupé wala du ma toppatoo service après vente service après vente gouvernement bi nga xam ne sénégalais yëpp sax dañoo xeex ba yàlla teg leen mais dafa fekk ne lu ñaaw ak ay ay ay fen ak lu injustice am na ñoo xam ne dañ ko mënul muñ quoi te buñ koy buñ siy jóg sax duñ ko tey dama nek ci sama profil Facebook rek gis ben média sénégalais bu bu titré euh, Pastef entre guillemets et les dérives du du passif nga gis wax ci bëri lool ño xamné ne yow toogagul sax mais ñëpp yakamti wala non yëpp yakamti lu muy défaut am wala problème am ku ne di mbel mbeli di wax yakamti ni bir buy daw noonu dembu ya wala ña nga xamné dembu démb entre guillemets ba problème yu mag doon am Sénégal dégo leen sax ñu saxat wala ñu dugg ci ñom na ngay gis tay ñu yakamti di wax di wax di wax xaarul lool am quoi may fàttali nak sama benn sœur bo xamné ni dafa am benn benn wax bo xamné ne nii ñiy déglu samay post <laughs> dama koy utiliser souvent parce que expression dafa am solo <laughs> parce que day résumer lu bëri bëri situation Sénégal wa mu né suñu benn tontu najaay ak benn kilifa daal moko don wax ci résumé mu né nit bu la bëggut.

mais euh, yàkkamti ba ba mel ni biir buy daw ba tax nag lu ne nga bëgg koo def pour problème am ah te sénégalais yi voteel ñii ñoom seen xel dal amul leen lu ñuy wax mais c'est c'est incroyable quoi. donc may may wax rek ne euh, euh, mais nit sa noon sax sa noon nit boo ko bëggut sax ndeysaan ba yàlla jox ko benn mission mais teelu rek toog dal ah bu yàlla waree def ne moom dana def faux pas mais loolu faux pas boobu bu ñëwee nga am fulla nag. toog ba gis erreur bu mag a mag boo xam ne boo ko dénoncé kenn ne lii du dëgg wala lii ñëpp d'accord ak yow nga door a dénoncé mais yow ñoo xam ne ni yàlla daf ñu ñëw tegugun sax nekkul lu muy di nommé ay sénégalais yu baax a baax yoo xam ne nii jub amu leen lu ngeen di wax lu muy xëy di sos di fen ñi nga xam ne Sénégal kenn kenn personne ne sort du néant kun fal wala kun teg am ngay mbokk wala am ngay ancien camarade de classe wala am ñu la jege ñu xam ñoo xam ne nii ñoom ku fen tamit boobaa dana ñëw modifier affaire yi wax dëgg

waaw ñun nag li ma si métti rek mooy encore une fois fas yéene nek yoro yor affaire service après vente parce que du suñu rôle mais nak euh, lépp lu ñu def rek on l'a fait pour le Sénégal moo tax mënuñoo nangu. Euh, bonsoir bonsoir mon frère comment ça va. bien bien merci. on pose ce sont les aléas du direct hein, les voisins donc pour vous dire <laughs> wax la rek né li ci am solo lepp moy euh régime bess bi nañu am gëna am fayda ñu am fulla lañ ñu am yaakaar lañ mais ñi ñi nga xam nañu nek di yàq inutilement. yàq deru nit ñi ah réew dafa am yoon dañu porter plainte ah léegi ñi leen di wax naan El Hadj Malick Ndiaye frère am El Hadj Momar Tall la wala ay Cheikh Ibrahima Ndiaye frère am la mais nañ boobaa yoon la wax nañu ko démontrer bu dee mën nañu indi extrait de naissance wala arbre généalogique bu woon ne ñii ay frère lañ euh, boobaa boobaa yoon dana xam su ko defee ku ne ku wax lu la neex lu du dëgg yoon kon condamné la mais réew mënuñu fa nekk rek am ñoo xam ne ni xaar lu muy lu bon am rek voilà mais encore une fois rek ñin fal moom nañ nañ xam ne na seen xel dal xam ne sénégalais yi leen voté en majorité ñoom ñoom saa waay ñoom seen xel dal na quoi parce que Sénégal première victoire bi ma rek mooy jàmm te jàmm moom <laughs> mooy mooy lépp si la lépp xaj donc yàlla neen yàlla gën a yombal yan bi rek euh, le peuple est fier de vous donc li ñu gisagum moom euh, macha allah donc yàlla na yàlla barkeel rek ñi nga xam ne nii nag moom dañoo nekk di yàq rek li li tubaab di wax rek le chien aboie ou les chiens aboient mais la caravane passe yalla jamu sax senegal senegal dem ba développer gëna jëm kanam ba sénégalais bu ne euh, euh, di ci am sa di di am li gën ni réew yu baax yi am jërë jëf